Ukraine journal bi de Les Échos nee na njiitu réew di président Macky Sall ak ñi mu àndal ci Afrique dem ci diwaanu Ukraine démb naam gisante nañ ak njiitu réew waaye nag ki nga xam ne mooy Zelensky moom dafa lànk ba tëdd sa naaj wa nee du négocier ak ki nga xam ne mooy Poutine maanaam Zelensky wax ne ñoom président Macky Sall na leen ma tey négocier ma ëllëg ak ki nga xam ne maanaam mooy Poutine yéen kay gi de Les Échos nee bi waxtaan ak moom ñoo ngi xaar ana lan lañ fay jëlee waaye li ñu jëlee gu ndala ci réewum Ukraine loolee neexul la ndax njiitu réewum Ukraine dafa lànk ba tëdd sa naaj wa ne négocié wu la yéen kay gi de l'Express xëy di ñu xibaar naan ñu Mouhamadou Moustapha Ba ministre bi ñu dénk wàllu finance ci réew mi gars yi ñoo ngi koy ngawta ci biir APR lu jëm ci mu nekk candidat coalition Benno Bokk Yaakaar ci élection présidentielle 2024 journal bi nee na Amadou Ba ak Abdoulaye Daouda Diallo ñaar ñii ñu bari a mën naa xëm lambaay mën naa ñaawa ndax ku ñu ci tànn ak géngante mën naa am loole moo tax journal bi jàpp ne su dee nag Mouhamadou Moustapha Ba ministre bi ñu dénk wàllu finance ñoom ñu nekk ci pouvoir bi jox nañu ko cër waaye tamit ñu nekk ci ko jigi jox nañu ko cër journal bi jàpp na ne mën naa nekk candidat Benno Bokk Yaakaar waaye nag bu dee dina am lenn loo xam ne moo ciy lëndama mooy ñàkk bokk gi mu ñàkk bokk ci parti bi di APR yéen kay gi di Sud Quotidien ñu xëy fekk fa El Hadji Malick Ndiaye mi yor wàllum communication ci parti Ousmane Sonko moom ay élection du am ci réew te bokk ca waaye nag li am ba de sala Karim Wade di Khalifa Sall ak Ousmane Sonko ñoom ñëpp ñoo war a bokk ci élection présidentielle 2024 yéen kaay gi di enquête xëy duñu xibaar naan ñu kuréel gi di ñoom gi Mari Sagna tey ci samedi ji ak suba ci dimanche ji dañoo bëggoon amal ay ndaje waaye tamit dañu leen ko lànkal préfet bu Ndakaaru moo leen ko tere waaye nag ñoom gi Mari Sagna ci journal bi askan wi ñoom démb doon nañu janoo ak taskul xabaar yi doon weddi li nga xam ne moom la gouvernement bu Sénégal doon wax ñoom sax dañoo jàpp ne conférence de presse bi nga xam ne ñoom Amadou Ba doon nañu ko def maanaam ay caaxaan la ñoom Déthié Fall woote nañu mobilisation ñaar fukki fan juróom ci weeru juin maanaam dem cité kër góor gi libéré Ousmane Sonko 25 juin dindi barrière loolee la waa coalition Yewwi Askan Wi woote yéen kay gi de la yedd ñi nga xam ne ñooy étudiants yi yéen i kaay gi du l'observateur xëy duñu xibaar naan ñu manifestation yi nga xam ne moo fi amoon ba léegi mbir mi jeexagula coow li jeexagula pënd bi wureegula ndax na tribunalu Pikine maanaam lu toll ci téeméer ak fanweer ak ñaar ñoo xam ne jàpp nañu leen dugal ci kasu bi maanaam 132 personnes yoo xam ne yóbbu nañu leen kaso am na lu toll ci juróom-ñett fukk ak ñaar yoo xam ne placé nañ leen contrôle judiciaire am na toll ci juróom benn fukk ak ñett ci ay mineurs yoo xam ne libéré nañu leen yéen i kaay gi di Vox Populi xëy duñu xibaar naan ñu maître Ngagne Demba Touré démb démb weddina Ismaïla Madior Fall ci lu jëm ci àtte bi nga xam ne dox na diggante Adji Sarr ak Ousmane Sonko nee na Ismaïla Madior Fall ji ab falsificateur décision justice la maanaam justice bi dafay jël ay décision Ismaïla Madior Fall di ko falsifié yéen kay gi di évidence ñu xëy fekk fa maître Doudou Ndoye moom jubbanti na Ismaïla Madior lu jëm ci wàllum corruption de jeunesse maître Doudou Ndoye daan na yebal Ismaïla Madior Fall ci li nga xam ne moom moom Cheikh Yérim Seck dafa waxoon ne mbiri Ousmane Sonko bu ñu demoon sax ba quatre-vingt-dix pour cent ci Sénégal yi di ci faatu état bu Sénégal na dem ba jeex kàddu Cheikh Yérim Seck yooyu nag waa CORED CORED di kuréel gi àtte journaliste yi ñoom lag ñaawlu nañ bu baax a baax kàddu yooyu nga xam ne Cheikh Yérim Seck wax na ko ndax dañoo jàpp ne loole woote la ab rayante ba pare tamit jéem a ñaax nit ñi ci lu jëm ci wàllum violence i kayi gii dalees fekk fa Thierno Bocoum ñaawlu na bu baax yi ki nga xam ne mooy Cheikh Yérim Seck daan nay wax ne Cheikh Yérim Seck jamono ji sax maanaam dafa war a génn ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllum espace médiatique bi lu jëm ci wàllum wax jeeg wàllum feeñ geeg tëj gémmiñam la Cheikh Yérim Seck war def ci mbir yi yéen kaay gi nee ñi nga xam ne ñuy waa kàppa kuréel gi ëmb ay syndicat ci taskatu xabaar yi ñoom nag nee nañu ajuma ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juin journée sans presse lañ koy def yéen kaay gi am las Amnesty International ñoom nag jamono ji ñoo ngi sàkku ab commission d'enquête bu leer nañ ci manifestation yi nga xam ne moo fi xewoon ak ñi nga xam ne ñoo ci faatoo yéen kaay gi de libération xëy di ñu xibaar naan ñu Ousmane Diouf ñu gën koo xam ci Vito mu bokk ci parti bi di Pastef mandat nañu ko dépôt ñoo ngi ko tege woon loxo ci diwaanu Giro ndax dañoo jàpp ne bokk na si ñi doon yàq ci réew mi yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy duñu xibaar naa ñu lu jëm ci wàllum parrainage citoyen journal bi nee na gaay ñoo nga sa sa dialogue ba am na ab déggoo boo xam ne jot nañu koo déggoogu na ndax lu jëm ci wàllum parrainage be nee nañu diggante zéro virgule six pour cent jàpp zéro virgule huit pour cent parrainage des élus maanaam loolee tamit validé nañ ko maanaam nañu ko kum neex tamit ñi nga xam ne ñooy maire yi wala président conseil départemental yi mën nañu la parrainer yéenekaay gi du l'Observateur nee na commission politique bu dialogue national bi kenn la fàll jamono ji moo ko jiite Les Échos nee na bi lu jëm ci wàllum caution bi élection présidentielle yi fanweeri millions la ñu jàpp maanaam trente millions yéenekaay gi di Direct News ñu xibaar naan ñu bi nga xam ne syndicat impôts et domaines yi doon ko def amul benn impact ci lu jëm ci wàllum recouvrement des recettes li am ci journal bi di sunu làmb mooy Luc Nicolaï mi nga xam ne moom la ñu wax ne jamono ji ma ngi def ay dëbbal dëbbal ngir taxawal combat Modou Lo Ama Baldé société nationale